والجوهر المكنون والسبب الذي فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المرتدين به هدت من السخي أنوارا لكشف دجنتي من الأنبياء والمرسلين وغيرهم الحمد لله القائل في محكم تنزيله مخاطبا حبيبه سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا wala tuti man agfalna qalbahu an dikrina wattabaca hawaah wa kaana amruhu furuta wasalaatu wasalaamu ala afdal almaxluqin wa akrami alsaadiqin wallaaxiqin alladi qaal majtamaca qawmun fi maqcadin yatluuna kitaab allahi wa yatadaarasuuna illa nazalat calayhim alsakina wa xashiyatuhum arrahma wa xaffatuhum almalaika wa dakarahum allahu fi man inda la shakka anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam yuriduna an natadakkara nicama allahi wa an natadaarasa fi umuuri diinina wa an natacallam wa natacammal wa nufakkira wa natadabbar wa an takuna majalisuna majalisa ibadatin wa duain wa dikr wa bi haaza qaala al-arif as-samdaani mawlaana cheikh al-haaj Maalik malaa'ikullaahi laa ziltum min al-kuramaa haffat bi jam'ikum wa tuubaa liman hadaruu wa radiyallaahu an cheikhinaa abil abbaas ahmad at-tijaani saqaanaa allaahu min faydi ma'aarifihi bi a'zamil awaani wa radiyallahu an cheikhina wa jaddina mawlana cheikh alxaaji malik alayhi ridallahi taala almaliki asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di nuyu ñi fi teew ñépp ci turu kilifa yi jaarale ko ci sëriñ Habib si mu sëriñ Mansour mu sëriñ Babacar mu cheikhul xaaji malik damay faral di dégg sama sëriñ sëriñ xabis si bu Pape sëriñ Mbaye si Mansour muy wax ni wax bi Seydi Hadji wax ni inna rasula bi qadril mursil ixtakimi mu ni baatu ixtakimi bi mu tëjee wax wi moo waral ku ñu yebal ci bërëb nga uutu fa kilifa mu ni na nga xereñe ba fuñ la teg yëkkati la jox la maqaama wala daraja yëgal ni du yow kala moo tax moo tax mu ni ixtakimi fa tabaarakallaahu ñu uutu fi kilifa yi le temps ñu agsi bu ñu agsee ñu delloo leen lañ ñu dénkoon insha allahu taala jël ziyaara bi teg ko ci moom suñ Habib mu joxal ñu ko fa tabaarakallaahu suñu bàyyi sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amin mu jox ko ay rakkam jotal ko nag xalifa bi di Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum xafidahu llah wa ajadahu wa nasara nuyu jeunesse tidiane bi fi teew jaarale ko ci waa université yëpp waa daayira bi président ak présidente ak membre yëpp nuyu oustaz Ahmed Fall mu yóbbaare daara ji nuyu Serigne Mansour mbay nuyu Serigne Daouda Diop di suñu sëriñ di suñu xarit di suñu soppe ànd ak Pape ak sëriñ xalifa mbay ak ñi ñu àndal ñëpp fa tabaarakallaahu nuyu al oustaz mi ubbi léegi jotaay bi fa tabaarakallaahu di ko ziyaara di ko ndokkeel nuyu soxna yi nuyu ñëpp fa tabaarakallaahu ni ko oustaz Ahmed waxee xam naa incha allahu taala waxtaan bu gàtt lay doon. ndax dañu bëgg wax benn nubza an xayaati cheikh alhaaj mahamadul mansour ibn seydi abi bakarin si radiallahu taala anhu ka waxidin min acdami shaxsiyaati hada alqarn wa acdami alqaa'imina bil islaaxi al ijtimaaci wal watani fi hada al asr inna al baxtha fi hadihi alshaxsiya almutanawwica almawaahib amrun gayru yasir dalika li anna cheikh alxaaj Mouhamadul Mansour almaaruuf bi borom daara yi istaasara fi xayaatihi ifaau umuurihi wa axwaalihi ala nnaas bu fekkee dañuy wax ci nitu yàlla yàlla subhaanahu wa taala wax na ni awliyaa yi taxta qibaabi laa yaarifuhum gayri nee na nitu yàlla yi ñu ngi sama suuf ak mbaar kenn xamu leen ku dul man yàlla awliyaa yi samay gaay man yàlla taxta xibaab yi ñi ngi sama suufuk mbaar laa yaarifuhum kenn xamu leen xëyri ku dul man moo tax wax ci nitu yàlla fa tabaarakallaahu liñ ci xam dinañ ko ci wax waaye li li ko yàlla dénk ci mbaax ak ci ay may ak ci darajaat ak ci ay fadail moo ëpp li ci nit ñi mën a wax fa tabaarakallaahu Cheikh Al Hadj Mouhamadul Mansour ci ñooñu la bokkoon kon fala bud dañu sukkandiku ci lenn ci ay taalifam lenn ci ay xasaayidam ak ay riwaayaat yoo xam ni mi ngi jóge ci ñi ko jege woon ak ñamu jàngal ak ña nga xam ni moo leen tarbiye ci loxoom ngir ñu mën a am as tuut loo xam ni mën nañ ko wax ci moom ci dundam ak itam sóobuwaayam ndax fi may ubbee waxtaan bi mooy dafa am laaj bu may laaj laaj boobu nag ñun ñëpp a ko bokk insha allahu taala dafay doon musharaka sama diggante man mi waxtaan ak yéen damay laaj laajoon naa ko ci fële ca Castor ma laajaat ko fii Ahmed junj na ci am am na lum ci junj sànq ci nekk bi mu nekk borom daara yi moom Serigne Mansour nekk bi mu nekk boroom daara yi wax na ci aada ak ci xaqiiqa may laaj foofu ñetti laaj ñu bokk ko ñun ñëpp insha allahu taala sëriñ Daawda ndax sëriñ Mansour li mu am ba tey kenn dootu ko fàtte ba foo ko tuddee ñëpp yëg ni tudd nga nitu yàlla nit ñi dencal ko cofeel te cofeel boobu day sax ba ilaa yawmi diin damay laaj ndax li mu doon doomu Serigne Babacar si moo ko ko may koo koy laaj bu njëkk bi maanaam ndax Serigne Babacar maqaamam ci yàlla ak li mu jëfal yàlla mérité yàlla sédd ko doom bu mel ni Serigne Mansour koo koy laaj bu njëkk bi ñaareelu raaj bi mooy ndax dafa jël njureelu Serigne Babacar si teg fële futteeku jaamu yàlla ba am li mu am maanaam ndax da ko sonne ni mu mel. muy ñaar ñetteelu laaj bi mooy ndax mayu yàlla la loolu laaj naa leen ko xam naa incha allah étudiants yi dinañ ko tontu ma waxaat ndax li mu doon ndax li mu mel njuréel moo ko ko may doon sëtu Seydi Hadji doon sëriñ doom doon doomu sëriñ Babacar si ndax moo ko may li mu am ndax wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi isni rabbi wallazi xabusa laa yaxruju illa nakida suuf su baax mooy meññ meññit ju baax ndax njabootu Seydil Xaaji malik mérité wul am ku mel ni Serigne Mansour borom daara yi ci li maamam liggéeyal yàlla liggéey ko tariqa bi ak baayam Serigne Babacar si benn ñaareel bi ndax dafa teg njureelu Seydil Xaaji malik njureelu Serigne Babacar sànni fële jëfe li muy jëfe sonn ba am li mu am ñaqal ko boppam kookoy ñaareelu laaj bi ñetteelu laaj bi ndax mayu yàlla la ndax wa anna al fadla bi yadillaahi yutiihi man yashaau wallahu dul fadlil kooku mooy laaj bi dina feeñ ci waxtaan wi xëy na dinañ ko jéem a tontu insha allahu moo tax fa tabaarakallaahu dinañ wax ci shaxsiyaam sonn bi mu sonn ak wàllu tarbiyaam ni ngeen ko waxee fa tabaarakallaahu ak xam ak xam-xamam tënku nag ci lenn ci injazaatam moom yoo xam ne al almiya war ruuxiya ni ko yàlla subhaanahu wa taala waxee ci alxuraan tagg ay gaayam laxad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axar wa dakara allaha kathiran wa lamma ra'a almuminuuna al axzaaba qaalu haza maa wacadana allahu wa rasuluh wa sadaqa allahu wa rasuluh wa ma zaaduhum illa imaanan wa tasliman minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi fa minhum man qaday nahbahu wa minhum man yantadir waaye nag wa ma baddalu tabdila liyajziya allahu saadiqina bi sidqihim wa yuadibu almunafiqina in shaa aw yatuuba alayhim inna allaha kaana gafuran rahima yàlla am na ay gaay yoo xam ni moo leen defaral boppam tàggatal leen boppam sëriñ Mansour ci ñooñu la bokk am na ci nag ñoo xam ni la ñu bëggoon te mooy dee ci yoonu yàlla maanaam jàkkaarloog yéeféer yi xeex ak ñoom ci jaasi ba génne àdduna am nañ ko am na ci ñoo xam ni ci seen lal la ñu tëdd waaye li ci am solo mooy gaa ñu baax ñi fi nekkoon ñi nga xam ni ñoo leen donn soppiwuñu dara tegguñu seen tànk ci dara fa tabaarakallaahu ba am ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala moo tax sëriñ Mansour ci ñooñu la bokk bu fekkee bëgg nañu wax ci moom dinañ laal tuuti ci melokaanu sëriñ nu muy mel ñu comparé ko ak moom Serigne Mansour muy aw saafu Cheikh al Haqiqi Serigne dëgg nu muy mel bu fekkee dañuy wax sëriñ sëriñ buñ koy wax mooy koo xam ni fa tabaarakallaahu jaamu na yàlla subhaanahu wa taala ba am cir ci yàlla donn yonent bi alayhi salaatu wa di dox pour jëm ci yàlla am ñu ko topp ànd ak moom pour mu yóbbu leen ci yàlla waaye nag kooku dafa war a xam yoon wi dafa war a xam yoon wi jiboog yàlla subhaanahu wa am xam-xam àgg ci yàlla subhaanahu wa taala pour mën a yóbbu nit ci yàlla loolu nag alquranul karim junj na ko beex sa wattabi sabila man anaaba ilayya yàlla mu ni na nga na ngeen na nga topp yow jaam bi képp ku jël sama yoon pour man ñëw ci yàlla subhaanahu wa taala na nga ko topp borom laxdari yu wax wax bu am solo daganul ci mukallaf muy jëf benn jëf lu dul war na ci xam àtte yàlla subhaanahu wa taala na laaj borom xam-xam waaye roy bu jotee royal ki teg tànkam ci sunna wala yaxlu lahu an yafaala filan xata yaalama xukma allahi fiihi wa yasaala al ulama waaye ba mu àggee ci roy wa yaqtadi bil mutabiina li sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy kan alladi mooy ñan alladina yadulluuna ala taatillahi wa yuxadiruuna min ittibaai cheytaan yi sooy laaj laajal ki xam waaye topp bu jotee toppal ki teg tànkam ci sunna Serigne Mansour dañ koy laaj waaye dañ koy topp dajale woon na xam-xam waaye boole na ci woon ak jëfe dina ñëw léegi sëriñ ni muy mel dafay nekk aarifal masaliki day xam yoon bi jaam di jaar pour sóobu ci yàlla subhaanahu wa taala aaliman mënuñu tuddee sëriñ ab sëriñ lu dul dafa jàng xam mualliman te jàngale yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa ni innama buistu mualliman innama buistu li utammima makarim al axlaq ñëw na waaye am na beneen xadis innama buistu mualliman dañ maa yónni pour ma jàngale waaidan sëriñ dafa war di waaraate taqiyan sëriñ dafa war a ragal yàlla mu rabbiyan sëriñ dafa war a nekk yarkat waaye wa murshidan sëriñ dafa war a jubbanti jaam yi teg leen ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala moom la borom ibnu achir wax ni yasxabu cheikhan aarifa almasaliki yaqiihi fi tariqi almahaliki yudakiruhu llaha ida ra'aahu wa yuusilu alabda ila mawlaahu cheikhul xaaji malik radiallahu taala anhu wax ci qualité sëriñ ni muy mel ma njëkkee ko rek ñëw ci sëñ Mansour taarifam fu mu juddoo kuy baayam waaye bu ñu nattee sëriñ nu muy mel jëlal loolu mu doon maayir boo xam ni maayir yoo xam ni duñ ci mën a natt kan mooy sëriñ Mansour borom daare gi ndax du génn li ma lay wax sëriñ noonu lay mel maam Seydi Hadji wax na ni ala nabbihul atbaa kay laa yuaaxizu bi ma axdasu fi ddiini duuna sawaa'i ala kulli matbuucin dilaalatu taabicin lima huwa ajdaa laa li jalbi ataa'i wa taalimuhum fardun walaw bi ijaaratin wa illaa alayka al ismu yowma liqaa'i Seydi Xaaji Maalik nee na képp kuy sëriñ na nga yee say taalibe yee ngir ñu bañ a li xew ci jamono ni mooy dëgg fekk du dëgg ma alaaji Malick ni war na képp ku ñuy topp war na képp ku ñuy topp nga am tettal yu ne ci yow yuy wane ni war nañ la topp nee na tekkiwul ngay dajale àddiya rekk di dunde waaye say taalibi nga leen di teg ci yoon wa taalimuhum maam alaaji Malick nee na jàngale ci sëriñ jàngale comme sëriñ Mansour naa ci ñëw léegi jàngale bi sëriñ toog di jàngale fardun farata la sëriñ dafa war di jàngale wa illa alayka al ismu yowma liqaa'i bu dul loolu allaaxira di nga am bàkkaar jàng ngeen ci alquran xuloo biy dox allaaxira diggante ki ñu topp ak ko toppoon istabara alladina tubi'u min alladina tabacu wa ra'ahu al'adaaba wa taqatta'at bihum al-asbaab wa qaala alladina tabacu law anna lana karratan fa natabarra'u minhum kama tabarra'u minna di nga gis allaaxira ab taalibe bu poñe sëriñam ni ko wallaahi bu ñu delluwaatoon ci àdduna ci kaw suuf duma la topp sànq nga ma waaye boobu wéy na fa tabaarakallaahu moo tax wa taalimuhum sëriñ buy jàngal ay taalibeem fardun farata la walaw bi ijaaratin donte sax sa taalibe dañ lay fay nga di jàngal wa illa alayka al ismu yowma liqaa'i kon nag fa tabaarakallaahu loolu mooy melokaanu sëriñ ñu natt ci nag sëriñ Mansour bu ci ne dinaa la ko wax insha allahu taala kan mooy Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour bu ñu ñëwee ci taarixu wilaadatihi wa nasabuhu min jihati ummihi wa abi Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour baayam mooy sëriñ Babacar Sy dinañ ci ñëw baayam di sëñ Babacar Sy dinañ ñëw ci moom insha allahu taala waaye bu fekkee juddoom taarixu wilaadatihi sëriñ Mansour borom daara yi mu ngi juddu samedi. 15 août 1925 ci miladiya 15 août 1925 la judd ci miladiya bu fekkee da ko jël ci hijriye ci tabaarakallaahu calendrier jullit ñi mi ngi tombeek 25 muharram mooy weer wu njëkk ci weeru jullit ñi 1344 ci la judd jàppal loolu 15 août 1925 ci la sëñ Mansour juddu bisu samedi mu tombeek 25 ñaar fukki fan ak juróom ci weeru muharram 1344 jàppal sëñ Mansour mi ngi génn àdduna kañ samedi 8 mu tombeek 24 muharram 1300 1434 xoolal chiffre yi mu ngi judd 15 août bésu samedi bésu samedi la juddu bésu samedi la génn àdduna Seyduna Muhammad altine la juddu altine la génn àdduna Cheikhuna Tidiane alxamis la juddu alxamis la génn àdduna. nga jël chiffre bi soppeekuwul 1344 chiffre 1 la 3 4 4 1434 moom it 1 la 4 3 4 kon bii da ngay jiital 4 bi andi 3 bi bee da ngay jiital 3 andi 4 chiffre bi changé wul. muy 25 muharram ci la juddu. waaye vingt cinq muharram ci lañ ko dugal ci suuf vingt quatre muharram la génne àdduna waaye vingt cinq muharram lañ ko dugal ci suuf moom Serigne Mansour borom daara yi ci Tiwaawoon muy 9 décembre 2012. kan moo ko jullee Thierno Bachirou Tall mu am sew sew foofu dund na 87 ans déglul de 8 15 mu judd kañ la 15 août ñaata at la toog ci xilaafa bi 15 ans 15 ñëwaat na foofu hmm. nee na 15 mooy xawaa mooy suñu maam xawaa nee na te xawaa baat bi mi ngi xaree ci xayya muy firi dund xawaa u takriman nuuri xayra musdaxami Seydi Xaaji Malik 87 ans la dund ci atu tubaab waaye su fekkee ci atu jullit ñi 90 ans la dund ndax bële xamariya la bii chamsiya la 90 ans tolloog mulku bii firi nguur kon ndeke nguur googu maamam Seydi Xaaji Malik ba mu koy junj ni wa in amalan an kaxat ilman tanaasala bi mulkin baatu mulku ñëw na mu daamin laysa fii xurubu su fekkee da nga may waxambaane jëfe soo ko mayee jeegu xam-xam dinañ jur mulku nguur goo xam ni doodul daanu ba mukk ndeki mulku bi bàyyam doom junj ci zajarul xulub Cheikh Alxaaj Mouhamadul Mansour radiallahu taala anhu quatre-vingt-dix ans yi mooy dund na malikan nekk buur yilif ñëpp ci wàllu xam-xam moo tax ñu tuddee ko borom daara yi moo tax mënu woon dund lu dul quatre-vingt-dix ans ci atu jullit ñi. Cerno Bachiru moo ko moo ko jullee dégg naa ci làmmiñ sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mu ni jamono jooju njabootu Seexuna Tijaani ñi ngi fa woon. waaye mu ñaan leen ni leen yéenay suñu sëriñ waaye suñu silsila ci cheikh mi ngi jaar ci cheikh Alxaaji Omar Fuutiyu moo tax Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy ba mu génnee àdduna Thierno Mountaga moo ko julle Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour tam radiyallahu anhu no Bachir mii moo ko jullee waaye xool leen baat bi ka jullee Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour Bachiru la tudd maa ngi ñëw bashiru xoolal ba Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Sy di jox xilaafa gi El Hadj Mansour lu mu ko wax bushraakumu Mansour qad wulliitumu sirr alxilaafati mawrid alzamaani bushra bégal ndeke wax jooju alaaj Abdu doom ko wax bégal ba mu génnee àdduna la muy tettale mooy këlay jullee Bachiru lay tudd mooy daf lay ñëw bégal ci bushra ba ma la waxoon ndeke quinze ans après alaaji Abdu li mu bëggoon wax Sëriñ Mansour mooy ki lay jullee Bachiru lay tudd bushra bégal Mansuuru yow Mansuur xat wér na péng ni wulliitumu méngaleef na la sëral xilaafati sikkiri xilaafa Cheikhuna Tijaani mawdida zamaani yow mi nga xam ne yaay rootuwaay ñamar ci yàlla azar amul aha raakumul Mansuur xat wulliitumu ku sopp borom daara ji defal nii اختلافة مورد الزمان lu tax waxu ko jox naa la xilaafa dafa ne ko jox naa la sirru xilaafa secret xilaafa Cheikhuna Tidiane yi ndax ba mu demee ci biir xasida bi da dafa ni ko inna al qasidata haadihi la hadiyatun min faydi Cheikh Ahmad Tidiane yow borom daara yi Serigne Mansour man sa baay Cheikh maa ngi lay jox xilaafa gi waaye nekkul li nga nekk doomu Serigne Babacar wattu war a sëtu Seydou Hadji Malick déedéet maa ngi bind mais Cheikhouna Tidiane moo may dicté ni ma yow la doylu pour nga toog ci xilaafa Cheikhouna Tidiane inna al qasidata hadihi la hadiyatun min faydi Cheikh Ahmad Tidiane Cheikhouna Tidiane may dicté xoolal Cheikh Al Hadj Mouhamadul Mansour Alaaji Abdu dafa ni ko jox naa la sirru xilaafa Cheikhouna Tidiane mais waxoo jox naa la xilaafa li ko waral xam nga lan la ki ngay donn doon xalifaam foofu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz si mënu ko woon wax ni yaay xalifa na Cheikhuna yi ndax boobu moom mi ngi dund. Mm-hmm. alxamis la ko jox ajjuma samedi mu génn àdduna waaye jeudi gi jël na sirru bi jox ko Serigne Mansour mooy man maay xalifa waaye lay doxal secret xalifa bi mi ngi ci yow diggante jeudi vendredi samedi dimanche. Cheikh Al Hadj Abdou Aziz même moom ci boppam bu bëggoon dara ci tarixa bi bu ko jaarul ci Serigne Mansour du ko am ndax moom mooy moom mooy xalifa gi waaye sirru bi jox na ko Serigne Mansour moo tax mu ni ko xat wér na péng ni wulliitu mu méngaleef na la sirral xilaafati sirru xilaafa Cheikhuna Tidiane mawrida zamaani yow rootu waaye ñamar ci yàlla وضها إليكم شاكرا مولاكم ويزيدكم في السائر والنعيم nee na jàppal xilaafa gi yow Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour te nga santee ko yàlla subhanahu wa taala at bu nekk ak bis bu nekk di nga am yokkute yow Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour borom daara yi moo tax mi ngi noonu waajuram bu jigéen mooy soxna Aïchatu Aïchatu mi ngoog fa tabaarakallaahu gis nga mbiru suñu borom Aboubacar Aïcha dinaa ci ñëw léegi waajuram di soxna Aïchatu Seck baayam di sëriñ Babacar Sy mu dund ci diggante am ñaari waajur yu baax lu jiitu wilaaya gi lu jiitu sax muy doon sëtu Cheikhul Hadji Malick radiyallahu taala anhu mooy moom ci boppam judd na ci ndey ju baax ak baay ju baax moo tax foofu wax naa leen ko sànq mooy Serigne Babacar si radiyallahu taala anhu liggéeyal bi mu liggéeyal yàlla subhanahu wa taala mérité na yàlla may ko doom bu mel ni Serigne Mansour borom daara yi mu juddoo wilaaya way juróom boobu di soxna Aïchatu Seck baayam mooy alaalimul kabir di sëriñ Demba Seck am nañu ni bu fekkee it sosul mbaaw bokk na ci ñuy sos mbaaw way juram bu jigéen tudd Faatimata Yàmm Sàmb ñaar ñooñu kon mën nga gis mën nga wax ni sëñ Mansour borom daar yi benn jolof-jolof la ci benn fànn tabaarakallaahu tukulóor la ci benn wàll waaye lébu la tam ci benn wàll fa tabaarakallaahu baayam mooy sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu nga xam ni moom laay tuddee xaawili xaamilu liwaai tariqati tijaaniya fi asrihi mooy ki nga xam ni moo donn woon Cheikhuna Tijaani moo tax daan na ko wax fii ba Faas maa fi donn Cheikhuna Tijaani radiyallahu taala anhu Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu anhu woo ko ni ko nag mag ñi lañ ma joxoon yow lañ ko doyloo mu ni ci benn condition bu ma kenn xam ba ma dem wuy ci sama borom judd 1885 génn àdduna 1957 Serigne Mansour borom daara yi toog ci daara ji dégg naa ci làmmiñam mu ni ba may nekk ci daara ji maa ngi am fukki at ak juróom ba ne mu génnee àdduna mu ni lu ko tàmbalee suba ba léeg ba minuit ba une du matin nee na fi mu toog la toog fa lay dajale ndékkeem añam ak reeram moom Serigne Mansour borom daara yi nee daan naa dem di toog toogaay boo xam ni dina dem ba sama deret dootul dawati ba bu ma tufli woon génne deret ngir toog bi mu toogoon sax ci daara ji di jàngale fa tabaarakallaahu bàyyam sonn ci moom jàngal ko dalal ko alquraanul karim yàlla subhaanahu wa taala def ni mook Serigne Cheikh mii di alxalif alxalifatul li tariqati tijaniya ñoom ñaar ñoom ñoo jàngandoo fa tabaarakallaahu yàlla dogalit ñu tuddee ko Cheikh Alxaaj Mouhamadul Mansour borom ñaari kaala yi borom tawdal jalalati sabran xalbukum salima yaa mujibal qalbi suudin wal bayaadini baatu man suuru bi di tekki ndimbal gu jóge ci yàlla subhaanahu wa taala ndax dañu wax ni maam Safiyatu Njang radiyallahu anha dafa ñëw ci Cheikhul Xaaji Malik nuyonte ak moom ni ko dama bëggoon kat si nga ñaanal ma ma am bant bu góor ci sëy wi maam Seydi Xaaji Malik di coonante ak moom ni ko kon de danga may weexal mi ni ko baax na mu dem fekk boobu soxna si mi ngi cuub di jaay ndeke li muy cuub mi ngi denc di denc ba am lu takku fa tabaarakallaahu yóbbul ko Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu taala anhu jënd ci ñetti nag yu góor li ci des ci xaalis bi mu ni ko lii maa la ko dimbalee ci téere yi ci daara ji mam Cheikhul Xaaji Malik radiyallahu taala anhu ni ko ni ko baax na jël ay mag jox leen ay dog pour ñu ñaanal soxna si mag ñi juróom-ñaar lañu mag ñi def ay dog ba ñu defee dog ba noppi fa tabaarakallaahu soxna si mucc jàmm am doom ju góor mu tuddee ko Seydouna Muhammad teg ci man suuru ndax comme ndimbal la gunjoon ut ci yàlla subhaanahu wa mu ni kii kat tuddee naa ko Seydouna Muhammad teg ci man Mansuuru moo tax sëñ baabakat daan wax man suuru Mansuuru Mansuurun min indillah mais xoolal yéene jigéen ji nga xam ni yéene woon na am doom ju góor ba jël weexal jox tabaarakallaahu sëriñam ak jëkkëram muy ñetti nag yu góor yàlla subhaanahu wa taala may ko ci ñetti ponkal yu góor ci lislaam muy cheikh alhaaj mouhamadul mansour cheikh alhaaj abdul aziz si ak maam habib mu dëppook ñetti nag yu góor yam ko weexaloon baatu mansuuri bi foofu la jóge tabaarakallaahu turandoom yar ko maanaam ubbi ko ñaanal ko yàlla subhaanahu wa taala baayam itam ñëpp ñaanal ko yàlla subhaanahu wa taala ba na mu jàngee alquranul karim ñu ni jàng na ci loxo baayam sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu jàng na ci loxo turandoom ni ma ko waxee léegi Cheikh Alhaaj Mouhamadul Mansour radiallahu taala anhu maam sëriñ Babacar radiallahu anhu ñu ni baatu borom daara ji moom moo ko ko njëkk a tuddee am na góor gu sant Njaay dëkk ca yeen dama jàppul turam Abdou Karim moom laa dégg ci moom ci waxtaan bu ma sékkee ak moom mu ni dafa am bés mu ànd ak Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu génn ñuy doxantu nee na jékki-jékki sëñ Babacar ni ko xaar ma mu ngi yor satala yor kurus dugg raw du Cheikhul Hadji Malick nee na mi ngi dégg sëñ Babacar mi ngi yuuxu mel ni kuy wax ak nit koo toogal te boobu denc nañ Cheikhul Hadji Malick ba noppi Mmh. nee na sëñ Babacar nekk ci raw doon wax ak moom pare génn nee na ba ñu génnee sëñ Babacar ni leen ñun de suñu yoon bi dina am kenn ku ñu dajeel te boobu guddi la nee na ay trois heures du matin mu ni ko dina am kenn ku ñu dajeel nee na ba ñuy dox ñu daje sëñ Mansour borom daara yi radiyallahu taala anhu mu génn ca daara ji nee na sëñ Babacar ni ko kële ñu seen kan la mu ni ko Mansour la mi nee na sëñ Babacar ni ko ah borom daara yi nee na baat bi foofu la jóge baat boobu la yàlla subhaanahu wa taala ba léegi fa tabaarakallaahu ñu koy woowee sëriñ Mansour borom daara yi dégg naa ci sëriñ Abdoul Aziz Sy Al Amine mu ni soxna Astou Kane way juru xalifa bi radiyallahu anha yal yàlla yokku leeram fa mu tëdd nee moom sëñ Babacar dafa tukki mu gis sëñ Mansour ak sëñ Cheikh nekk maanaam fa tabaarakallaahu xam nga rekk mbiru xale nee na mu xëcc leen fa tabaarakallaahu yóbbu leen ci góor gi euh, ku ñuy wax góor gi Ibrahima Dieng nekkoon taalibi sëriñ Sidi Ahmed si doomu Cheikh Sidil Hadji Malick nee na mu yóbbu leen ci moom. moom moo leen dalal alquranul karim fa tabaarakallaahu moom sëriñ Cheikh ak sëñ Mansour borom daara yi mu ni nag gannaaw loolu jàng nañ ci loxol sëriñ bu ñuy wax màmmaloo alaaji màmmaloo ci moom sax sëñ Mansour ak sëriñ Cheikh ci moom la ñu mokkalee alquranul karim sëriñ Abdoul Aziz Al Amin nee na moom ci ñoom lañu ñu mokkalee alquran ci riwaaye warsh xifzan jayidan nee na nag gannaaw loolu mu tàmmimaat yi ñu ngi ko jàngee ci seen bàyyi sëriñ Babacar si nee na bu leen daan jàngal day takk ndiggam moom tabaarakallaahu sëriñ Babacar si jàngal leen sonn ci ñu jàng sëriñ Cheikh nee na àgg na ci sax daan na leen jàngal xam-xamu njibar mu ni ndax nit ku nekk jamono dafay yéeme dina dem ba saay-saay dafay bari dinañ la liggéey xeetu njibar yoo xam ne njibar rek moo koy mën a dindi fa tabaarakallaahu nee na xeetu xam-xam yooyu yëpp moom moo leen ko jàngal sonn ci ñoom fa tabaarakallaahu xam naa li ñu bindoon bari na waaye waxtu bi fa tabaarakallaahu euh, daanaka mi ngi ñuy bëgg a dab incha allahu taala xanaa ñu ñëw ci ay mbindam égit ak tamit ay mayam ndax yàlla subhaanahu wa taala ku ko mayoon kashfu la moom am na ci benn boo xam ni man ak sama benn sëriñ ñoo fa àndoon yàlla dogal boobu mi ngi doog a toog ci xilaafa gi radiyallahu anhu ñu toog saal baa ngi fees am kenn ku mu digal ni ko kaay toog sama wet kooku ni ko sëñ bi tabaarakallaahu sañu ma ko mu gëdd ko ni ko jugal toog ni ko ndigal moo gën màggal loolu maa ko njëkk a dégg ci moom ndigal moo gën màggal mu ni ko lii danga ko def pour màggal ma waaye ndigal gi ko ëpp doole al imtisaadu bil awamiri laa yadurru fi mu toog ci xaalam mu ni àllal ma big ndax boobu am na benn xasida bu mu bëggoon bind ndeke am na benn waay ci mbooloo mi bu jël big rek ñu jokkalante jokkalante jokkalante ba mu ñëw ci seen Mansour mu sànni big bi ni big laa wax waaye ñi toog ci jotaay bi yëg nañ ñi big bi mu sànni waddul ndeke dafa am benn waay bu jox ci mbooloo mi koo xam ni dafa luxus big bi jox ko ko moom yëg na ni waa ji lim ko jox du big waa ji jóg ni ko wallaahi yow yaay xalifa na Tidiane yi dama la doon seetlu fa tabaarakallaahu waaye ñoom lañ ci am ak làq ko ci bari na waaye Seydi Hadji Malick yooyu ñoom circonstance lañ ko doon defee ak seen njaboot ndax daan na wax ni innal karamaati xayrun li rijaali laa tusib li nafsika fa innal wasfa lillah ah waaw circonstance moo tax lu baree bari ñu ko daan def li rijaali ak li mu doon bokkul nee na niñ koy fiire ak li mu doon bokkul waaye daan nañ ko def ngir circonstance ak it léeg-léeg it fa tabaarakallaahu su fekkee nit ki dafa yor ab xaram wala ab bëyam léeg mu génne ko di wane te yow nga yor sa gaynde léeg-léeg dina baax nga génne ko mu xaw a ŋaang suuti ubbali tabaarakallaahu nga dugalaat ko waaye innal karaamaati xaydun li rijaali gën naa yaatu loolu waa keñ fa tabaarakallaahu moo tax daan na toog ci daara ji musu sa génne ba ci fa tabaarakallaahu daanaka ci mujj dundam ci lay tàmbalee di génn di voyage yi musul génn daara ji te di wax loo xam ni yéem na aalam bi yëpp lan moo ko ko may ndax dafa nekk ci daara joo xam ni daara yi la Hadji Malick la nga xam ni ñoom daara la gu am daa ndax bopp bu fees ci xam-xam ruux bu bandi ci leer a ko gën ndax xam sax ci daara ji di jàngale looloo ko ko may te loolu ba tey fa tabaarakallaahu boo demee ci tiwaawoon yàlla loolu sédd na ko maamam Cheikh Sidil Hadji Malick radiyallahu taala anhu bind na ci lu bare bare bari wax dëgg yàlla li ñu bindoon bari na waaye fa tabaarakallaahu euh, waxtu wee ñu dab te incha allahu bëggoon nañu Ahmed Fall mii ak ñeneen ñi nga xam ni war nañ def ay tadaxulaat ñoom it ñu andi li nga xam ni fa tabaarakallaahu ñi ngi koy andi waaye nit la koo xam ne fa tabaarakallaahu régulateur social la woon yarkat la woon fu mu toogoon daara la koy def ba ci fa tabaarakallaahu cérémonie officielle yi ñu daan def biir Tiwaawoon sëriñ Mansour borom daara yi daara la ko daan def ak ni mu déggee woon alquran ba ci weeru koor ak nam ko daan firee fa tabaarakallaahu jàmm ji nga xam ni tam daam na ko dox li nekkoon fa tabaarakallaahu ba ci Casamance xasida yim ci bind ba ci ba muy dem fees ba ci ba muy dem màkkatal mukarram di jël salaatal faatixi di ko jox naar yi ca ca tabaarakallahu maqaame ibrahim yooyu yëpp fa tabaarakallahu bindoon nañ ci lu bare bari bind na ci nasru bindoon na ci chiaru bind na ci lu bare bare bare bare bari fa tabaarakallahu am na ci benn xasida boo xam ni mi ngi ko def ci soxna umul xayri xam nga kër gi maam Cheikhul Xaaji Malick képp ku ñu tuddee umul xayri képp ku ñu tuddee umul xayri ci kër gi ñu ngi lay dàkkantalee rabiatul adawi Cheikhul Xaaji Malick radiallahu anhu amoon na doom ju jigéen bu tuddoon soxna umu xayri si di doomu Cheikh Sidil Xaaji Malick radiallahu taala anhu ñi ngi ko denc ca màkkatal mukarram ca Baqiya sëñ Mansour borom daara yi way na ko ci laqad xalla silkun muxbirun bi asibati aishata yawmin min nawaaxi lmadinati dem ba ci biir ni la in dammaha laxdun bi taybata balqaun la abqat jamila dikri fi kulli baldati wan ni ko sigam sa jëmm denc nañ ko foofu yow sama bàjjan soxna umu xayri yëgal ni sa way du fay mukk moo tax sëriñ Babacar lii moo lay tettal ni ba mu tàggoo bàyyam Seydi Hadji Malick ni ko damay dem màkkatal mukarram bokk na ci lam ko waxoon soxna umu xayri bu demee ba ñëw nga dem waaw demee ba ñëw nga dem waaw fa tabaarakallaahu ak ya ca xew ndax dañ ko ko doon jëwee ak di ko ko jame waaw tabaarakallaahu naan demul màkka mag ma ko ñeme woon ba ko ko laaj tàggu Serigne Cheikh. tàggu Serigne Cheikh. ak Serigne Mansour. yi ñuy waxtaanee. Ah, sëñ Mansour dafa ni ko digalu ma la ko le. Serigne Cheikh ni ko bu ko def. bu ko def de. góor gi dëgër bopp. daal di dem sëñ baabakat naka la dugg ci saal bi. nuyoo toog. sëñ Babacar daal di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. an nazaru. ila wajhil mu'min. xayrun min istiqbaalil kaabati. xool xar kanamu jullit bi gëm yàlla. moo gën sax jàkkaarloo ak kaaba gi. allahu akbar. loolu la sëñ Babacar wax. góor ga dëkkul woon Tiwaawan waaye. gannaaw loola génnul tiwaawoon ba ni mu génnee àdduna ndax dafa daje waaja di sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu moo tax mi ngi noonu am na ci boo xam ni benn xasida la ci mbindam ba tey ak tarbiyaam ak mënoon jàngale ak ñëw xalimaam sànq wax naa leen ko gis nga mbir mi fa tabaarakallaahu du ci jàng mbir mi ci xam-xam la ndax jàng ak xam-xam bokkul am na téere bu ñuy wax awdaxul masaliki fi taarifi xayaati wa manaqibi seydil xaaji maliki saar ñu ngi ziar saar saar saar saar ñu ngi ziar bismillah tafaddal bismillah bismillah bismillah na ngeen def ñu ngi ziar saar saar na ngeen def am na téere bu ñuy wax awdaxul masaliki fi taarifi xayaati wa manaqibi Seydi El Hadji Malick yi Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Sy moo ko bind di ci nettali dund bàyyam Seydi El Hadji Malick dafa am benn xikaaya goo xam ni dafa am benn wax jum ci wax inna Cheikh El Hadji Malick allahu huwa alladi tawalla taalimahu mu ni Seydi El Hadji Malick yàllaa ko jàngal ndax am na ci ñoo xam ne yàllaa yàlla moo leen di jox kuur wattaqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen lu ngeen jàngul moo tax ki yëg di wax ak ki yër di wax bokkul moom laa la wax sànq bopp bu fees ci xam-xam ruux bu mànd ci leer a ko gën sëñ Mansour lu tax mu daan wax lu yéem ñépp ndax ruuxam dafa màndi woon ci leer ndax ku génne daara Tiwaawoon sa ruux dafay màndi ci leer mu ni moom Cerno Saïdu nuru mu ni ba may ñëw ci maam Seydi Xaaji Malick sëñ Ahmed mu ni li gënoon tuuti ci li ma xam mooy fekk mag bu am quatre-vingt-dix ans ma koy jàpp ba mu am dix ans ci benn place Thierno Saïdou Nouroo ko wax mu ni waaye ngoon gi ma nuyoo Seydil Hadji Malick la ko rocc ci man bindul maasul deful dara dafa mu nuyu rek rocc ko ci man moom laa leen doon wax sànq fi kulli yawmin tatlubul karaama alam takun baax na alam taruumu min qabli hastiqaama moo tax bind na lu bare bare bare bare bare fa tabaarakallaahu ba ci bi mu mujj bind di wax ci tabaarakallaahu ka nga xam ni moo doon jéem a caricature yonent bi sallallahu alayhi wa fa tabaarakallaahu euh, wax ci lu bare bari loolu tam di wane donn bi mu donn Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donn bi mu donn Cheikhuna Tidiane nga xam ni képp ku laal yonent bi alayhi salaatu wa moom Serigne Mansour borom daara ji mu taxaw ci xam-xamam ak yitteem bind wax ci kon nag eh, fa tabaarakallaahu dañ doon xaarandi Serigne bi di Serigne Ahmed Sarr di ko ziyaara bu baax a baax a baax di ko dalal di bëgg ci moom di ko ñaanal yàlla yokk xam-xamam yàlla guddal fanam ñi ngi koy suivre sànq ca TFM fa tabaarakallaahu moom ak Oustaz Pape Hann moom it di suñu Serigne ndax surtout Serigne Babacar la te sëriñ Mansour yar ko waaw yar ko jàngal ko mu jóge ca daara ja ñun nag dañ doon nab nabi rek fa tabaarakallaahu kon boo ñëwee incha allahu dañuy yëkkatiwaat kàddu gi jox la nga dugg ci waxtaan bi ndax sa cër la yéen lañ fi ndekk ni woon la temps ngeen ñëw fa tabaarakallaahu li ñu bindoon bari na moo tax dañ ko doon romb rombaat ak romb rombaat rek fa tabaarakallaahu ngir mu mën a gaaw fa tabaarakallaahu yàlla nañu yàlla jàppale yàlla nañu yàlla taxawu yàlla nañu yàlla taas ci barkeem ñun ndaw ñi ndax am nañu royukaay bu mat royukaay muy sëriñ Mansour borom daara yi te am na ñoo xam ne duñu génn àdduna bu mukk laa tax sa taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaun inda rabbihim yurzaquun sëgëm ni ñi ngi ci bàmmeel yi waaye seen jëmm ñi ngi fi ba tey ndax ñi ngi nii fa tabaarakallaahu nekk fii ci université di wax ci moom te yàlla dogal na niñ ko waxee Oustaz Ahmed Fall mii yàgg nañ nekk fii ndax département arabe bii la ñu nekkoon fa tabarakallahu ba def suñu mémoire def ko ci Cheikh Alhaaj Abdoul Aziz Sy xayaatuhu wa juhuduhu l islaahiya kon nag yàlla nañu yàlla may yokk suñu cofeel ci ñoom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ Ahmed Sarr bismillah bismillah فلولاه ما كان الوجود بخلقتي وأرواح كل المرتدين به هدت من السخي أنوارا لكشف دجنة